azal fulki kal xame maraami wa xaajaati li ah, kàddu yi de moom kàddu yi jéggulu rek lay doon yéen sango yu tedd yi fi ne daal yéen ñëpp ñu ngi leen di jéggulu ci turu daayira bi ak njabootu dëkk bi yépp ndax wax dëgg yàlla nii mu demee daal bokkut ak niñ ko programmé woon waaye nag yàlla dafa dogal tey dëkk bi xaw a bari ay gan ak lu mel ni ay séet yooyu ba tax na xam naa jigéen ñi fàtte ko kon loolu moom lañu njëkk ci kàddu yi jéggulu leen ci jéggul fa jéggul tàmbalee ba fa mën a yem ndax dëgg yàlla kenn wóotawoo sa kilifa mu ñëw fekk la fa nga te fekku fa kenn loolu wax dëgg yàlla moom noo koy jéggulu bu baax a baax a baax a baax ginnaaw ba loolu jàllee nag ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turu suñ Baara Jóob mii moo fi nekk ci njabootu suñ Masamba Jóob ak sëñ alaaji Jóob mii di ko teg ci loxo euh, maam Thierno Birahim mii fi toog toogal fi njabootu borom daarul moxti ci nuyu le monsieur le maire maa Jóob bi tey teew na fi ànd ak euh, sëñ Moustapha Ndiaye ak ñi mu àndal waaye lii moom dafa nekkul euh, cérémonie waxtaan rek lañ ko jubloo woon a defee ngir dalal sang su baax si bàyyi koo Daaru Musti ñëw fekk si kilifa yi teewul leen ñu jëmmal liggéeyu bi nga xam ne sëñ Massamba Diop séq na ko borom Daaru Muxti loolu rek moo waral jotaa bi waaye du jotaayub cérémonie du jotaayub lenn lu weesu nit ak taalibeem nit ak dëkkandoom loolu rek mooy jotaa bi waaw ndax yàgg nañ ko def lool te mosuñoo am cérémonie moo tax na kon lii tey du cérémonie ay ay kilifa yuy ñëw ci fekk ci seeni seeni taalibe waxtaanu kilifa ak taalibeem rek lañ fi daan dajale. loolu mooy waxtaan waaye du cérémonie ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax a baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julli yi fi teew yëpp mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat seexul xaddim di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général mu yàgg fi lool te ci barke seexul xaddim di ñaanal seex sidir muxtaar mu baax mi nga xam ne si ne ñépp a ngi koy jooy te noppirgul ñu ngi koy ñaanal bu baax sunu borom yokk ay leeram te taaf ñu si barkeem ci barke bis bu tedd bi ci barkeb guddi gu màgg gi ci barkeb sëñ sàmba Diop di siyaare tamit kilifa yi nga xam ne si ne ñoo teew ci jataay bi walla ñi teew ci dëkk bi ñëpp kenn ku si nekk ñoo ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay di la jox sa daraja te di leen baalo ak jamono bu nekk saa su ndaw ñi di leen yëkkati waaye lépp tamit ñoo xam ni ne sëriñ ma sàmba Diop liggéeyal Seexul Xaddim liggéeyal lislaam rek moo leen ñor kon nag ñoo ngi jéggalu bu baax ci kàdd yi seen kanam waaye day kàddi ndigal yoo xam ne si ne sañu ñu koo bañ loolu rek moo tax ñu jël fi kàddu waaye du suñ coobare bopp ñuy wax ci turu daayira bi tamit daayira bi nga xam ne si ne moo organisé liggéey bi ba mu agsi fii di daayira sëriñ di daayira sant sëriñ ma Massamba Diop sëriñ Seex lay nekk ca bopp ba kon ci turam la ñuy waxee ci turu daayira bi la ñuy waxee ci turu mbooloo mi la ñuy waxee tamit waaye xeebu nan ci kàddu yi ba tax na tamit waa daayira bi nga xam ne si ne ñoo organiser mbir mi ñi ngi yëkkati seen kàddu di ko jaarale ci ndongalu xeebu lii di ko jëmale ci mbooleem képp koo xam ne si ne askanoo nga si ma Massamba Diop Samb di ay canti kàddu yoo xam ne si ne lott nañ ci wax ko waaye lott nañ ci tamit béral ko ci seen kanam waaye ci biir cant googu tamit ñi ngi ci sant mbooleem ñi nga xam ne si ne ñoom lañ seqal liggéey bi ñëpp muy ci biir dëkk bi ak ci biti dëkk bi ñëpp loolu nag day lu am solo loo xam ne si ne jamono bu nekk saa su ni bi war na ko waaye tamit ñoo xam ne guddi gii day guddi gu màgg goo xam ne si ne ci ndigal las ko amee ci ndigal tamit las koy defee lu ci nekk tamit bala ñu koo def dan dan koo jële ci turu walla ci ndigalu Cheikh Abdourahim mi nga xam ne moo fi nekkal ma sàmba Diop Samb di ñaan sunu borom yàggal ko fi te may ko ak wér ba lim yéenee liggéeyal sëñ Massamba Diop mu liggéey ko si coobareem ba naal yeneen ak yeneen ak mbooleem njabootu sëñ Massamba Diop gi nekk ci ginnaawam tamit ndax bis bi tamit bu ne bis bu màgg la waa daayira sant sëñ Massamba Diop Samb organisé ko day lu am solo loo xam ne si ne day dugg ci biir cant bis bi tamit ñu jël ko jagleel ko jàmbaar joo xam ne si ne wala tudde ko jàmbaar joo xam ni dafa am ngërëmal Serigne Touba dafa lëggéeyal Serigne Touba tamit ba am ci lu ni jële jële lu ni muy maam Thierno Ibrahima Fati ñu xam ni tamit dëkk bii nga xam ne si mooy Daaru Jóob kenn ku nekk xam na ni ci ndigal lañ ko sanc woon muy ndigalu Serigne Touba te ki nga xam ne si ne tamit ci ndigalam la jóge wan muy Serigne Touba jaari Serigne Massamba Diop Sam muy ma Massamba Diop moomee ak maam Thierno Ibrahima Fati benn lan wan du nu ñaar kon nag jàpp naa ni bu daayira sant Serigne Massamba jógee organiser bis ngir tudde ko maam Thierno Ibrahima Faty day dellu day delluwaat ca taarix ba rek xam ni si ne lii lu war a nekk la lu war a am la lu mën a nekk la tamit ndax ñaar ñooñu ban daan ànd di liggéeyal Serigne Touba fekke woon te jàpp naa ne tamit dañoo liggéeyal Serigne Touba ba am ngërëmam tamit kon jàpp naa ne guddi gi wala bis bi lu fi waay ñaan mu nangu ndax fin ko teg moo di ni mbégum maam Thierno Ibrahima Faty la mbégum sëñ ma Massamba Diop nit nag wala taalibe bu dee def loo xam ne si kat ab sëriñam wala ki kii ab buntam sëriñ tubaa bég na si rek kon mën naa jàpp ni loolo lum ci fas lu nekk sunu borom dana ko dana ko defal kon ñoo ngi ñaan bu baax guddi gi yàlla nañu sunu borom defal ngërëm defal ñu si ay tawféex yu bari si daraje Seexuna Ahmadul Xadim yi ñaanal sëriñ Abbas yal na ko yàlla gën a yàggal suñu kanam te may ko ak wér ndax lii nga xam ne war na ko liggéeyal borom daaru yàlla may ko kàttan gum ko mën a àggalee ndax ku nekk xam ne mébét mi nga xam ne am na ko ci mbirum borom daaru sumb yim sumb daaru mu si sumb yim sumb ci njaboot daaru mu yaakaar naa ne rëy nay rëyaay goo xam ne nii ñun ñëpp fu ñu xëyee rek war nañ ko yaanal yàlla may ko kàttan may ko doole may ko wér goo xam ne nii dana mën a àggale loolu suñu nuyoo ak ñaanal sëriñ Abbas Mbacke nag mooy ñaanal itam sëriñ taxaa mi nga xam ne mooy njiitu yoon wi ndax ñun borom daaru moo ñu boole ci waa kër sëriñ Touba loolu moo tax dañ koy santaat bu baax a baax ndax tey ku ñu woo ñu ne murit la kooku ña ko dugal ci yoon woowu war na koo sant te ñun bu dutoon ak borom daaru xaj na duñ ko xam te ni ngeen ko waxee itam ci diggante borom daaru ak sëñ Massamba xam ngeen ne am na njariñ am na. solo boo xam ne nii képp koo xam ne yaa ngi wuyoo ñooñu rek war ngaa santaat bu baax a baax ndax jegal nañ la borom Touba mi nga xam ne moo ñu ubbil yoon mi nga xam moo jëm ci suñu borom. di nuyu kilifa yi nga xam ne itam ñoo fi teew yëpp mooy sëriñ Alaaji ñoo ngi koy nuyu di nuyu chef de village di nuyu waa dëkk bi yëpp di nuyu waa daayira bi itam di am mbégte ci ñoom ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def suñu diggante ak ñoom. di nuyu mbooleem nit ñi nga xam ne moo xam ay kilifa lañ moo xam ay ndaw lañ yuñ fi yebal ñu ñëw fi ci suba ba ci ngoon wala ñu ñëw fi léegi itam pour fekk bis bi ndax xam nañ solos bis bi moo tax ñu ñëw fekk bis bis bi nii. Ah, di am mbégte encore une fois parce que comme ni ma ko waxee léegi rek taalibe borom daaru lañ wante yàlla dogal itam ñu nekk maire commune daaru Moussi. commune daaru Moussi nag buñ ko waxee daaru job dafa bokk ci commune Darou Moussi kon fekke bisub daaru Diop. loolu lu am solo la bu ñu yàlla mayee ñu nekk maire boobu man ko fekkee ndax bu toon nekk nañ maire sax bu bis bi ñëwee tey war nañ ko fekkee boole boole na ci nekk yàlla dogal ñu nekk maire ñu ne lépp lu ñu fekk ñu def rek war nañ ko bàyyi pour ñëw ci bis bi. bi ñuy ñëw itam ñu ànd ak Serigne Moustapha Ndiaye mais nga xam ne conseiller municipal la wante mooy directeur rajo Darou Mouhty FM en même temps itam jiite commission bi nga xam ne moo yor mbirum daara yi ci mairie bi dañ ne daara yi am nañ wàll ci mairie bi te pour ñu gën a gis seen bopp faaw ñu gis ab sëriñ daara boole ko biir pour que bu ñu demee ba nara a sax moom danañu mën a fàttaliwaat ne ñii kat am nañ wàll ci mbir mi. moo tax bu ngeen seetloo ñetti at yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci mairie bi at mu jot am na loo xam ne nii sedd nañ ko daara yi nga xam ne ñooy jàngale alxuraan te dëkk ci commune Darou Mouhty bi te loolu bari wut woon lu daan am bu fekkee ne daana daana am itam jiitam Daaru Diop ñetti daara yi ñaari daara yi jotagul nañ seen wàll te incha allah daañu góorgóorlu ba képp koo xam war ngaa jot itam nga nga jot sa wàll loolu dafay firndeel suñu diggante yéen Daaru Jóob ak commune Daaru Musi loolu moo tax daaw bi ñu ñëwee fii toog di waxtaan ñu waxoon ñu liggéey bii si mbaar mi xaj na suñu doole bariwutoon wante booba lijjante woon nañ tonub ciment ba jàppale ko ci liggéey ba ba jamonoy dox ba mu yàgg itam ñoo am benn partenaire bu ñuy wax PUDC bi nga xam ne gouvernement bi moo ko fi taxawaloon biñ ñu laajee ay dëkk ñun dañu tànnoon Daaru Jóob ci dëkk yi nga xam ne war nañ ko jàppale ci ay machine ba ay ñaari machine waroon na fi ñëw yoo xam ne nii pour jàppale jigéen ñi la ci mbirum wal wala bo kii gerte nuñ koy wax sax dër gerte dër gerte wala boo ji gerte la ji gerte boo ji gerte ah, ah machine yu tiga dégg la woon ak machine ak machine café euh, boole woon nañ Daara Diop ci dëkk yooyu ba incha allah machine yi bu ñëwagut tam yaakaar naa sax am na benn bu ci ñëw ah chef de village yaakaar naa machine yi am na bu ñëw ak seegul waaw kon am na ñaari machine yoo xam ne ni war na ñëw Daaru Daaru Diop te ñun commune Daaru Moussi ñun waa mairie ba ñun ñoo tànnoon Daaru Diop boole ko ci dëkk yi nga xam ne war nañ leen a sedd parce que xamoon nañ ne boo jëlee commune Daaru Moussi Daaru Jóob dëkk bu ko ci ëpp solo bariwut min asheytaan rajim wa inni unshiha bika wa surriyataha min asheytaan rajim rabbi ausu bika min amasati shayatin wa ausu bika rabbi ay yahdurun asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ alhaji bi moo la jox ndigal ñu wax ci aw turum moom it muy waxee ci turu sëriñ Abdourahim Diop nee mi ngi leen di nuyu Eh, di nuyu itam maam Thierno Mbacke mi nga xam ni moo fi teewal sëriñ baas Mbacke sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax a baax maam Thierno mi ngi lay yóbbante ak cant ci sëriñ bi nee na nga yóbbu mi ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax nee na ñoom ñu ngi yeesalaat seenu teele bi waxtu wu ne di yeesalaat seenug njëbbal ndax ñoom seen lépp sëriñ bi ak taalu bi rekk la lun mën a am lu mën a doon itam jaay na lépp jënde ko ak taalu bi kon nag maam Thierno sëñ Alaaji nee na sëñ Abdourahim nee na ngay waxal ko sëriñ bi ne ñu ngi sant bu baax a baax ci taxawaay bi ak jotaay bi yépp nee na mi ngi ñaane tam jotaay bi yàlla bu nekk suñu mug jigi jotaay ci barkeb sëriñ Touba nee na sant nan bu baax a baax a baax ndax lii gën naa rafetal diggante bi nga xam ne doxante diggante maam Thierno ak sëriñ Massamba Diop ndax ñoom ñaar seen diggante kenn ku ne xam na ko ba tax na lii bi yàlla dogalee mu am nu fopp cër bi cërale ko borom daaru loola wane na ni ànd boobee nga xamee ne doxoon na diggante sëriñ Massamba Diop ak maam Thierno loolee salaat nan ko ci liggéey bii kon nag loolu sëriñ bi nee na mi ngi mi ngi ciy sant bu baax a baax sëriñ Alaji nee na mi ngi ànd ak ay bokkam sëriñ euh, Baara Diop ak ay rakkam yi fi nekkal yëpp. sëriñ Bassirou Diop mu sëriñ Modou sàmb itam teew si ne mu ngi ci jotaay bi ay ndawam mi ngi fii ci ci ci ci mbaar mi nee na ñoom ñëpp daal nee na ñu ngi yeesalaat seenug cant maam nu bëgg nga jottali leen ko sëriñ bi loolu daal la waxal ni mi ngi koy sant bu baax a baax di ñaan itam sunu borom guddal fanam yokk ak biram ba yéene ji nga xam ne yéene la koo liggéeyal borom daaru yéene koo liggéeyal ci njabootug sëriñ Touba yàlla may ko wér ak kartan ba mu defe ko na mu ko bëggee ci ànd ko ak teel bi ak bokk yi ginnaaw loolu sëriñ bi itam wax na ne mi ngi sant ñi nga xamante ni si ñooy yore taxawaayu liggéey bii di waa daayira bii ci njiital sëriñ Cheikh lay bu dee ci wàlluk soxna yi soxna maam Faati Diop ak soxna Njawa sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax tey rafetlu seen liggéey bu baax a baax di leen jaajëfal coono di leen masawu itam ci coono yi bu baax a baax nee na liggéey bi mi ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax mi ngi leen ci ñaaneel di leen ñaaneel itam sunu borom def ngeen yàgg koo jëf te yàgg nu fee fekk ci lépp sëriñ Massamba Diop nangu ko ginnaaw loolu itam sëriñ bi nee na wax na ni mu ngi leen di diggal ngeen góorgóorlu bu baax ci yow jaamu yàlla góorgóorlu bu baax ci seen diine ak seen lislaam ndax jamono ji xat na lool adduna itam daanaka ci aaxiru samaan ci la nekk te loola la kam comme loolu am na li ñuy mën a dimbali ëllëg mooy jëf ju baax kon nag nee na kenn ku ci ne fa nga nekk mi ngi leen diggal nga góor góorlu ci sa diine góorlu ci sa lislaam ca toqantal ci njaboot gi ndax njaboot gi itam ñun war a teg ci aw yoon la ndax bu ëllëgee des koy laaj ndax njaboot gi la jox su ëllëgee dees na la laaj wan yoon nga ko jaarale wan ak fan nga ko jaarale wan boo boobaan na rekk waaye nan fexe bu bunu njaboot gi yey kon nag bu yàlla dogalee nu suñu borom dénku nu njaboot gi leen leen xiirtal ci sëriñ bi xiirtal leen ci jaamu yàlla xiirtal leen ci ak bi loolu itam sëriñ bi nee na mi ngi leen koy dénk bu baax a baax ginnaaw ba loolu wee itam euh, sëriñ bi nee na mi ngi sant monsieur le ci ci teewaayam di lu taxawaay bu baax a baax di ko wax itam mu ngi ñaan itam mu jottalil ko kàddoom fa nga xamee ne ñooy kilifa yu mag yi ndax moom nee na amul lu dul dëkk bi amul lu dul njabootug dëkk bi ci gis na ni itam bari na yu fi manqué yoo loo xamante si ñoom ñoo ci war a taxawee kon nag monsieur le maire sëriñ bi nee na mi ngi lay ñaan nga jottalil ko fi nga xame ne ñooy kilifa yi ñu jàppale ko ci liggéey bi jàppale ko ci ci liggéeyu dëkk bi ba li nga xamee ne moom lañ fi yittewoo lépp euh, ngeen jàppale ko ci ban ama ko nañ ko bëggee ndax bu ngeen gisee mbaar mii fi nekk seen doole rek ci lañ ko jaayantee def ko ci dëkk bi nag ñoom ñu nangoo jaay seen doole la ñoom jigéen ñi ak góor ñeeg ñëpp kon nag comme loolu am na nee na mi ngi ñaan daal nga jottalil ko ci kàddu ñu jàppale leen ci bu baax a baax ba yi nga xam ni moo fi manqué yëpp. ca état war ko fee taxaw nee na nu jàppale ko ci ba lépp am ndax moom amul lu dul njaboot gi amul lu dul sëriñ bi amul lu dul dëkk bi ku ko ci jàppale daal jàppale nga ko ca loolu rek mooy yitteem ginnaaw loolu itam sëriñ bi nee na mi ngi sant Abdou Lahad moom itam ci taxawaay bi nga xam ne taxawee na ko ci liggéey bi ndax kenn ku ne xam ne ni lu fi seet di village war a dox jëme ko ci dëkk bi mi ngi bàyyi ay yitteem di di taxawee loola di ci sonn nee na itam mi ngi koy ñaanal itam Euh, taxawaay boobu it yàlla wayefal ko defal ko ci ak jàppandal ci barkeb Serigne Touba barkeb Cheikh Massamba jóob Sam kon nag loolu daal la sëñ bi ni mi ngi koy jottali kon nag yàlla na suñu borom defal dégg ak topp ci barkeb Serigne Touba barkeb Cheikh Massamba Diop Sam wajhal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida jërëjëf sëriñ Touba mbokk yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax tey jiital si siyaar bi kilifa yu baax yi nu fekk ci jataay bi sëriñ biit it yabal ñu muy sëriñ Abbas mu nañu bu ngeen demee ngeen jaar ci sëriñ Seexuna kon it ñi ngi siyaar ñin fi fekk yëpp ci ay kilifa mu ñu ànd sëriñ Modou Habib ak sëriñ Abdul Khoudous ñi ngi siyaarit bu baax a baax monsieur le ak ku nu fi fekk rek ci biir jataay bi teyit xam na ne kin ñuy waxloo ay kàddoom muy sëriñ Abbas bu kàdd yi guddee rek mel na ne du ay kàddoom ku ko xam waaye jataay bii lu ko ñor la lu ko ñor la nday ndaxit lam ñu ca wax xam nañ ko bu baax a baax te loola mooy ki ki nga ko def ki ñu ko defal muy ku baax ki di sëriñ Masamba Diop Sam ñuy taxaw foofu di ñaanal sëñ Abdourahim bu baax a baax bu yàgg fi ci wér barkeb sëriñ bi ak ki ngeen ko tuddee nga xam ne bu ngeen doon làmbu toot dañuy wax ne daj ngeen muy borom daarul Muxti ci digganteem ak sëriñ ma sàmba moom lu waay gàtt gàttu dégg xam nga ko ndax ku baax ki leen boole muy sëriñ Touba bu du woon ñooñu laa wax tuubaa geer sax du taxaw ndax sëñ Touba tëlu ko woon. sëñ Touba tëlu doon ay kër tëlu woon dara. ku mel ne Cerno mel na ne ma sàmba Diop moo tax lu fi taxaw taxaw waaye du Sëñ Tuubaa lam taloon mooy yàlla mi ko bind. waaye jëfi Serigne Massamba Diop Sam buñ ko doon wax du fi jeex wax nañ ne liñ njëkk a jëfandikoo ci aw ñam ci Touba moo ko fay di te it ku ne xam na ne ko ay taalibeem kenn gën leen ko ñeme waaye ki ngeen ko tuddee it di borom daaral moxti monsieur le maire xam na li ñuy wax tey boo jëloon mappaab Sénégal suuf Sénégal sépp 40 kilomètres carrés 25 personnes bu ñu ko séddoo woon mu jeex kon ku xam na ni jëfam bu jëfalut woon sëriñ bi dara laa wax de dara te def lim def ci ak ñoom ak ak jom ak ngor ak amu fit lim am dana ko am ndax avant sëriñ Touba ñu baax a fi nekkoon de sëriñ bi daa ñëw gën waaye ñu baax a ngi fi woon ay jàmbaar a ngi fi woon sëriñ Massamba Diop mii ñuy waxtaane fii ku baax la woon ña ko jiitu woon it ña ko meññ bu dul woon sëriñ bee dana nam lu baax ndax fan teg seen tànk sëriñ bi dafa ñëw lépp gën a gën waaye nanu xam bu baax a baax li nu am ca jàpp ko mu dig teelu bi mooy li ñu jariñ waaye du dara du du lenn lu dul lool yi ñoom fañ tegoon seen tànk muy gëm sëñ Tuubaa bu wér te koy liggéeyal wóolu ko waaye laneen moom du fi jariñ la fi jariñ mooy ñoom fañ nekkoon ñu jëm faa nekk nekk murid yu gëm sëñ Tuubaa te fas yéene ko liggéeyal foofu la sëriñ Masamba jóob nekkoon fala ki ngeen ko tudde woon di Cerno nekkoon kon nan nekk foofu ak cant daal dafa mësta weesu cant ca ni leen ko waxee moo tax kàddu yi moom bu guddee danañ xam ne suñuy kàddu bopp képp lañ ci yokk waaye sëriñ bi moom leen ñu sant moo ñu ñëw bu ñëwee xam ne lii ngeen di def bég na ci bu baax a baax sant na ci ka ngeen koy def kattax ngeen def ko muy sëriñ sàmba ak Cerno mi ngeen koy defal yàlla na leen ci yàlla fay lu kawe seeni njort may leen gudd fan may leen it wërsëg wu ngeen liggéeyale sëriñ ma Massamba Diop Samb te bàyyi leen fi ngeen wérte gudd fan rek bu ko defee ñi ngi yemale foofu kàdd yi tey sant bu baax a baax moom daal ak cant bu ma ñun ci boppam li nu sëriñ bi wax moom mooy lii ngeen def bëgg na lii ngeen def daal bëgg na ci bu baax a baax a baax waa kër sëriñ ma Massamba Diop Samb ñoo jël bis tudde ko borom daaral Muxti loolu bëgg na ci bu baax baax te rafet daal mënta weesu lu gën a rafet lii te buñ doon waxit ba suba duñ mën a gën a wax lu rafet lii kon daal ñi ngi gàttal foofu kàddu yi tey jéggulu bu baax a baax lu ci gàtt lu ci dëngit ñu xam ne suñuy kàddu kepp a matadi ndax ab murit bu bëgg a doon murit képp lañ waaye sëriñ bi nag moo nu yabal jox ñuy kàddoom tam diis ci ñun lool kon ñu ngi jëddu bu baax a baax ci ñuy déglu jërë ngeen jëf